pour am Macky Sall bi mu génnee démissionné de la mairie de Fatick dafa dem def tour du Sénégal boobu benn mairie la yore woon amul benn député. d'accord mais man dama yeggali. Mhm. kenn du ma ñàkkal fayda boo bëgg nga déglu ma foofu c'est important pour montrer que je meilleur candidat te j'ai vu des gens diw moo ne candidat diw diw diw te diw ñoo ñëpp ma mën leen ñàkk leen dégg monsieur le ministre. ñu ñu wax ñëpp ñàkk député nekk l'homme du 23 juin toj université moo toj ko ñoom ñëpp le seen leader tant qu'ils sont j'étais leur leader ñu ma wooyee Lénine waaye man diriger leen université diriger leen grande grève diriger le mouvement étudiant diriger Jaraaf de Dakar yore association jeune xam jeunesse bi li mu bëgg xam étudiants yi li ñu bëgg xam leen mooy gouvernement xam leen mooy assemblée nationale honorable député xam leen mooy maître El Hadji avocat ma taxaw wala yore réew mi mu yëpp et ba pare rek fi ñu toll nii comme je le dit le candidat de la sécurité. Mm-hmm. dama ku lappi-lappi ñu rëq sa ndigg ku taal ñu ah, taal la foofu développé tuuti ci magasin yi nga xam ni sécurité bi il faut développer sécurité bi moo ma ñor fi ñu toll nii il faut ñu développé ci yambar mënul yore Sénégal déggoo ma de kuy yoxi yoxi di layam lay ma mënul yore Sénégal dañuy xam ni président fawul réew mi dañ ko teg ci yoon ku fi ñëw di def loolu noonu état bi dina jël toutes ses responsabilités duñ la bàyyi sa état duñ la bàyyi sa ngay dugg état bi wane la diriger ëllëg <laughs> ñëpp ku di nga nalaw banque yi duñ ko toj 17 banques lañ toj bii passé toj Auchan yi station yi ba ci Shell waxuma total de station yëpp sa dañu yàq rek sax ci rek loolu lan il faut un de poigne un leader charismatique quelqu'un de courageux. Ça veut dire quelqu'un de courageux. Ça veut dire quoi que le président de la République Macky Sall. si il est courageux moo tax mu jàpp ñu bëri ñu naan jàpp na 500 personnes. waaw mais c'est ana ana ana numéro 2 Pastef. ana numéro 3 ñoom ñu ngi jàpp kon président ragalul. ana numéro 2 Pastef de actuellement jàpp nañu ko tey. 55 jours yi tëj ko këram mënul génn. ko état ragalul délégation. kon le Sénégal n'a pas de problème de sécurité délégation Yewwi ñu ne 20 mu tabaski normal. le 25 ma toog maa kat di déglu Euh, fu ma tëdd Hilton le vingt cinq ñuy wax naan fa demoon di ko seeti mayu ñu sax ñu gis ko ma ne ah léegi changé nañ version bi léegi dañoo ne koy luqati ji léegi nag mayu ñu leen sax ñu waxtaan ak waaj d'accord mais très bien alors euh, donc programme sur la sécurité waaye il faut parler de la sécurité parce que aussi ñun dañu bëgg a critiquer programme bi loolu parenthèse la woon loolu intéressé oui c'est ça sécurité bi rek et 24 na pour loxati ko le 25. non bàyyil vraiment sa programme. voilà le maintenant sur la sécurité. waaw dama ni. président bu bu yambar bëgguñu ko feefal président bu tooy wala bu soxla wuñ ko. Ah. président aussi buy tricher wala bu bëgg a diviser Sénégal ñaar sud ak nord indi ay monnaie locale soxlawuñ ko. da ngay da ngay bëgg Sénégal def ko benn Sénégal président bu jiital benn benn benn région contre benn région duñ ko nangu. kon dama bëgg a boole Sénégal rek. d'accord par rapport à la sécurité mooy ku jóg ci région boo mën a jógee. mais rapidement nag. da ngay taal dinañ la taal force de défense et de sécurité yi dinañ jox ordre. mais maître loolu tamit vraiment c'est ça c'est que ça dérange ba léegi loolu nga wax yëpp y a des dispositions du code pénal boo xam day réprimer loolu. waxuma répression de. waaw dama ni la. l'effectivité de la répression. oui mais vous voulez être président quand même yenn discours yi également c'est c'est à bannir. ah non non je suis le candidat de la sécurité xoolal. mais un homme averti nee na un homme averti en vaut deux dama ni on a on évolue université Dakar bi ko attaqué dama ni bu doon may président hélicoptère de l'armée laay ñu naaw bombardé ña fa nekk yëpp di taal <laughs> ñu massacré tous les taaleurs. donc léegi li mooy sa programme li mooy sa programme non li mooy sa programme li mooy sa programme waaye may ma. mais c'est dangereux soo nekkee président déglu ma déglu ma déglu leen ko. candidat de la sécurité et du programme mais maître attendez ki damay toog pour yàq sama programme. Ah, ce que vous êtes en train de dire également. maa ngi xaar problème bàyyi sama candidat mu wax sécurité. comme dama juñu xamagu ma bëgg a wax yëpp. Ah. Ah, waaw dama ne. Mm-hmm. am sans sécurité. Mm-hmm. je suis le candidat de la sécurité et du progrès. dama bëgg wala ñuy toj di taal ñuy defar dans chaque département déjà. danaa in daa installé benn usine bu mag l'inventeur du crédit bail à Saint-Germain-en-Laye këram mu jox ma programme bi discuté ci comment développer un pays pour l'emploi des jeunes sama programme coopérative bi koy monté Sénégal moom dañ ko oon moom lycée FFR bu jógee ci ay ñoo ñëw conseil sama programme non sur la sécurité pour la sécurité waaw doucement dama bëgg képp koo xam da nga jóg pour yàq amul baale baale zéro ku def ku toj wala ku ooti nañ nañ gat sa gat sa <laughs> wala ñëw leen dee mortel combat wala ku dee si yaay juraat. du ma ko nangu sa programme yëpp c'est autour d'un homme alors. mais c'est c'est pas vrai. c'est pas vrai moom programme ce que j'ai vécu. xam ni. ak groupe am dañoo bëgg a taal Sénégal. mais maître est-ce que est-ce que kon moom programme. maître pour sauver Sénégal. Mhm. de djihadistes qui son aux alentours au Mali. oui ceinture de feu bi ñu wër. ceinture de feu bi ak des coups d'état da nga da nga Niger ba ki démb. waay da nga Burkina. Mm-hmm. da nga Mali da nga Guinée. Mm-hmm. ak ñi jigéen doon naan ay am ay ay officiers yoo xam ni waxtaan na ak ñoom tak di di kàcc. dañu ngay jëlee général Seck intervenir. le très républicain. ancien système gars général Seck sa programme yoo tamit nag. ma ne ci sama programme kon. Ah, waaw dama dul maye dara ci ay tàcc. mais ba léegi concrètement dégg guma fi. looy mettre en place pour la sécurité man boole foofu laa lay déggoo mais déggoo ma li ma wax. waaw dama ni la du ma baale dara. donc loolu mooy sa programme. xoolal du man. waa léegi waa léegi jox jox ma wax la waay sur la sécurité la wax. mu ngi ci sécurité bi nee du baale dara dinaa yokk dinaa yokk doole policiers yi. yokk doole gendarmerie yi. Mm-hmm. jox leen ay instructions fermes ku yéen fekk muy taal taal leen ko. ah non maître. buñ taalee buñ taalee taal taal ak kenn du taal. mais non non non ku yéen fekk muy yàq. rajo leen ko. d'accord maître alors. yaa ngi wax waxu usine non mais quand même. yow taal mais mais. loolu yoon la wala sama kër.

soo ko bëggee développé sax am na feneen foo xamante ni fa nga war a mën a jëmee wax ji. mooy fan mooy fan mais pas. mooy fan pas pas. nee na du am la. naa la fan laa ko jëmale waaw moom laa la c'est-à-dire que man lu ma jàpp mooy gis nga dans un pays. d'abord la sécurité ne se résume pas tout simplement à mater de commander des manifestants parce que moom son problème principal aujourd'hui li mu daj. ci coono ci manifestation yi actuellement loolu la bëgg a venger wu te loolu. je c'est pas vrai banque c'est pas vrai un président la dama ne banque yi dañu toj. waaw mais c'est pas vrai dama ne université lañu ko taal. waaw moom laa ne bu mu négligé loolu. dama ne mais nee non non nee c'est moi qui ai la parole aujourd'hui nee na moom li muy wax non non nee na soo demee tey article bu nangu. 82 du ma nangu muy intervenir sama intervention. mais daf lay da ngay mënoon naa ko may mu def farante mais day ñu intervenir non man j'interviens ci li nga wax. non pare ko ma. waaw kon nag waxal ci mais bu la doy sa affaire la. bu la doy sa ceeb jël la loolu mooy sa programme de sécurité. lii mooy sa programme de sécurité. mais lii lii mooy sa programme de sécurité. yow yow dañuy programme yow. lii mooy sa programme de sécurité. léegi dañuy dem de loolu dama terminé dama def utilisé dama ni. nee lii mooy sa programme de sécurité lii mooy sa programme de sécurité dama ni dama ni sama programme sécurité. mooy lan ah. dama ne renforcer les forces de défense et de sécurité. jox leen instruction ferme ku gis mu yàq yàq leen ko. koy gis muy taal taal leen ma li mooy programme waaw déglu mooy d'accord mais mënoo ñàkk la fay de boobu programme <laughs> sur la sécurité ma ni euh. un homme averti en vaut deux d'accord maître merci ba pare ma léegi non mais il faut ma développer li muy wax waaw d'accord mais il faut nga pare également du ma ñàkk a fay de ci conclusion bi allez-y conclure parce que li wax kon muy mujj ci ma may développer sama après ñu ñëw ci usines yi ngay tabax ak yooyu voilà dama ni amul programme waaw sama programme ki am programme mu ca kaso ba. dama ma yaa waaw na wax man waxuma kooku. waaw mais maître est-ce que da ngaa gëm force occulte yi depuis quelque temps ñu ñu koy wax rek. ak bu fekkee ni xam nga gan ñu ko au moins pour ñu comprendre na wax programme bi. ci force occulte parce que ci sécurité la nekk. Oh, ci côté sécurité nga gëm naa force occulte. gëm naa djihadiste. Mhm. gëm naa salafiste. Mhm. gëm naa rebelle. gëm naa bandit. mais c'est l'actualité. gëm naa ñu bëgg coup d'état. Mhm. seen xol mooy mu am coup d'état parce que ñoom mënuñu gagné wala mënuñu bokk ci élection dama la dama xam seen i seen seen leen tax a jóg. kon en conclusion nee ne sama programme pour la sécurité mooy Sandaga war naa ne rencontré ña fay liggéey duñu xalaat ñu xëy ñu toj seen magasin mooy station yi duñu yeewu xalaat ñu toj seen station yi banque yi duñu tëj ndax ragal ñu attaqué leen te ça am kon ku ne fa nga nekk sa xel day dal loolu bu dul programme ci ñu ñi am jàmm. ah xanaa ki nga xam ne bëggul jàmm ki nga xam ne bëggoo jàmm moo naan loolu mooy programme am ça c'est un programme dañoo bëgg jàmm nag ça c'est un programme ma ne même Màkka tey. waaw joxoon ma développé. ngeen ne bi du programme d' accord nee na bi dee Màkka xam nga ñun lu ñu jëm. du développé pour montrer que nee nañu programme ñi ma doon Màkka yëpp. Mm-hmm. xam nga ñu ñaan. Mm-hmm. jàmm jàmm Sénégal yàlla ko yàlla may jàmm. te vous allez garantir la paix. jàmm la ñëpp bëgg ti am na ñoo xam ne. Cheikh Omar. non non mais ah, am na ñoo xam ne bëgguñu jàmm. posaati question day jëlaat encore temps. léegi nag on avance après on revient. léegi il faut ñu xeex ak ñooñu bañ jàmm. d' accord très bien. arrangé ko moom. voilà on va sur l'autre maintenant avant may ñëw ci yow Serigne Saliou on va voir euh, euh si potentiel u euh, candidat potentiel u cinquième président euh, bu bu bu 2024 que fii ñu toll ma encore tout à l'heure il faudrait que les choses ñu changent le pétrole il y a le ñu ngi wax tout bi passé waxu immigration irrégulière je pense qu'il faudrait même ñu xool bu baax a baax un candidat qui sera capable aujourd'hui de régler cette situation donc pour pour répondre à votre question dañ koy teg ci trois aspects mm-hmm. le premier mooy sur la personne ban candidat la ñuy am aujourd'hui le Sénégal fonctionnaire day nekk un multimilliardaire day nekk koo xam ne mm-hmm. euh, day nekk euh, première classe bi lay bokk c'est-à-dire du classe moyenne bi quoi mooy classe bi gën a ci kaw fonctionnaire lu ñu ko xamee mooy salaire am na yoo xam ne ils font des métiers yoo xam ne métier libéral la ñooñu ils peuvent se permettre nekk ñoo xam ne ay milliardaires lañu wala ay multimillionnaires mais Sénégal ngay gis un fonctionnaire boo xam ne alalam doo xam ni mu toll mais ça day répondre ci principe wu euh, euh, bu lien bu am entre cause ak conséquence cause yi mooy ci benn système lañ bokk système boo xam ne ñu si bëri profit du système pour s'enrichir ñu si bëri bon je pointe du doigt personne nag mais suñu xoolee li fi am mooy ñu fi bëri ils profitent du système pour pour s'enrichir alors que à la base ils sont des fonctionnaires fonctionnaires xamee wuñ ko. Mhm. alal bu bëri un avocat. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait ñu tegoon en place les corps de contrôle de la République. normalement pour justement pour euh, euh ces enrichissements illicites. un avocat c'est un métier libéral on va y revenir aussi ci. sur question CREI avocat métier ci am xaalis comme nga ci bañ am xaalis. Mhm. dafa am ay risques un entrepreneur. métier libéral la donc tey lu ñu war a laajte sax mooy ñu def un audit sur les prochains candidats ñu def seen déclaration de